Sénégal ñàkk na tey jii doomam joo xam ne nii doom ju amoon fulla am fayda bëgg boppam waaye itam bëggoon li muy def Bruno jaata nekkoon chef de protocole ci jamono président Senghor Abdou Diouf président Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall nekkoon nit ku diiñ bëgg liggéeyam am ca loolu fulla bariwul ay fakkastal yoo xam ne dab na ko ci bërëbu liggéeyukaayam Bruno jaata nekku nit ku réservé wu woon waaye place ba nga xam ne fa la ko président yi soxla woon saa yu ñu gestoo gis ko fa daaw ko gis itam ci lu jëm ci wàllum presse bi mu yëkkati ay kàddu benn yoon Bruno Diatta nekkoon nit ku kalm waaye itam nekkoon nit koo xam ne ni ku discret la woon yooyu qualité yëpp maase nekk ci moom terewul ay jege ñaareem di fësal ne nit ku sympathique la woon waaye itam nit ku bari jàmm la woon transition nekkul lu yomb waaye itam chef de protocole itam nekkul lu yomb ndax liggéey bu baree bari moom mooy gàllu ci sa kaw tërewul Bruno Diatta day assuré na li nga xam ne moom moo di ab liggéeyam tërewul Bruno Diatta di wéy di assuré li nga xam ne moo di ab liggéeyam te kenn mësu koo dégg ci benn bruit ci jamonoy Abdou Diouf Abdoulaye wadd ba ci président Macky Sall te loolu lee nekkul dara lu yomb transition yooyu yëpp dox fi ñetti président te kenn mësta dégg coow wala ay jafe-jafe yoo xam ne nii danga nga cey dégg tur Bruno jaata wala itam mu laale ci lu ca jëm assuré ba mu mat sëkk li nga xam moo di seen sécurité waaye itam fa ñu war a jaar ak la ñu war a lijjanti te ñëpp xam nañ ni liggéeyu président waaye itam njiitum réew nekkul loo xamante ni lu yomb la terewul Bruno jaata assuré ko yar ci boppam ba fépp foo gestu rek daal di koy gis jamonoy Abdou Diouf foo gestu gis ko ci wetam ak teint ba boo xoolee kanamam doo ko bi Abdoulaye Wade ñëwee itam mel ne Bruno moom la mës a takkool ba Abdoulaye Wade jóge fi jamono ji mi ngi woon ci président Macky ba ni muy génnee àdduna ni ki tey jii ci ji nee nañu démb ci alxames ji liggéey si na Bruno Diatta di patriote waaye nit ku bëgg réewam nit ku fonk liggéeyam xam na mu koy defee génn na àdduna Sénégal perte doomam ju am valeur waaye itam doomam joo xamante ne ni di ko rendre service la mbooleem réew mi bi ñu déggee nouvelle bi ñëpp daal di sëngeem ngir ñàkk gi ñu ñàkk ki nga xam ne ki nga xam ne ni moom mooy chef de protocole bi nga xam ne nii ku